sayyiduna aliyun karamallahu wajhahu nee na anam am na juróom-ñeenti baat yoo xam ni daa mel ni ku ci ndamu ngir boole gu ñu boole lu bari te gàtt ñett yi dañuy deeyaaleeg boroomam nee na sunu boroom doy na ma tedd nga sëkk nga doon sama boroom doy na ma ndam sëkk ma doon sab jaam yaa ma moom dee ma jëmale ci lépp loo bëgg ñett yi ci xam-xam la nee na nit ki day nëbbu li feek waxul bu waxee feeñ nit ku nekk la muy def ci lu rafet loola mooy xaymaam wali kulli darajatum mimma amiloo ñett yi ci teggin la nee na del jariñ ku la neex kon nga yilif ko doylul ci ku la neex kon nga mel ni moom deel ñaan ku la neex kon mu mel ni ku la jàpp te jaxfar as-saalix nee na am na juróom-ñeenti jikko yoo xam ni yonente yi alayhimu salaatu wasalaam la ko sunu boroom jagleel képp ku xam ni am nga leen santal yàlla subhaanahu wa taala ku leen amul ñaan leen yàlla subhaanahu wa taala muy wóolu doylu muñ sant lewet rafet jikko tabe fiir ak jàmbaar yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam nee na am na fukk ñoo xam ni ci sama xel wi bu ëllëgee sunu boroom dana leen mere dana leen tàbbal sawara ñu ni ko yow yonente bi yàlla bi ñan la mu ni mag muy njaalo imaam ju réer kuy saxal naan sàngara kuy rambaaj kuy seere ak neen kuy mere ay waajuram kuy fase ba noppi di tee ndax loolu mooy njaalo gu nëbb wala iyaazu billahi taala ak kuy jeng ci ab àtte ak ku bàyyi julli nee nañu ko amul juróom-ñeent yi du am juróom-ñeent yi ku amul xel du am ngëneel ku amul xam-xam du am tedd nga ku dul jëf du am tuyaaba ku dul yéene du amuk pay ku dul fegu ci yu ban yi du amul diine ku amul jikko ju baax du amub xarit ku dëgërul du am xalaat ku lewetul du mën a jiite ku amul tedd nga du amu yiw am na boroom xikam bu masa wax doomam ni ko am na juróom-ñeenti yëf yoo xam ni boroom xikam yi ŋàññi nañu ko lool muy fen aaw jaxta boo ñàkkee wala def loo wata def ak iñaan wor nay gaawtu ñaaw jikko Sufyaanu as-Sawri yu nee na am na fukki mbir yoo xam ni ñaawi teggin la di ñaanal sa bopp te doo ñaanal say waajur ak jullit ñi di jàng alxuraan te doo saxal bis bu set di jàng alxuraan te doo ko saxal bis bu set di dugg jàkka ba génn te doo fa julli romb ay armée te doo leen nuyu doo leen ñaanal dugg ci ab dëkk bisub ajjuma ba génn te doo fa julli ajjuma boroom xam-xaw ñoom ci barab ba nga nekk te doo ko siyaar doo xam lu ci moom doo ko teral ñaar ñuy ànd te kenn du laaj moroomam aw turam ak ku ñu woo te doo wuyu ak gone guy jëm ci am mag te du jàng dara du sàkku ab yar ak kuy suur dëkkandoom di xiif te du ko jox mu lekk kax bu nee na génn naa ci tawreet lu mat fukki baat ak ñaar bind leen ci aw kayit takk leen ci sama dox di leen xool bis bu set ñaari yoon ba ci njëkk moo di yow doomu aadama bur ragal ak ñàkk li feeg maa ngi nekk buur bur ragal sa wërsëg raw la li feeg samay dencukaay ñi ngi fees te samay dencukaay duñu jeex sayduna omar radiallahu taala anhu mas naa laaj kenn ci nit ñu baax ñi ni ko ndax gis nga ci man lenn loo sib mu ni ko dégg naa da ngay teg ñaari mburu ci sam ndab te am nga ñaari mbubb benn bi ngir guddi gi benn bi ngir bëccëg gi sayiduna omar ni ko gis nga leneen lu dul loolu ci man mu ni ko déedéet mu ni ko maa ngi lay waatal ci yàlla subhanahu wa taala loolu du amati mukk anas nee na am na waxambaane wu tuddoon alxama bari woon lu muy saraxe farlu itam ci jaamu yàlla subhanahu wa taala bi mu tawatee tawat ju metti yónni soxnaam ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mu ñëw ni ko sama boroom kër daa toll ci sukuraat yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama yebal bilal ak salman ak aliyu ak ammar ngir ñu xool ko radiyallahu taala anhu ba ñu àggee ni ko neen la ilaha illallah nangu wuta wax te mu wóor leen ni day faatu ñu ñëw yox ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mu ni leen ndax am na ndey ak baay ñu ni ko baayam faatu na ndeyam nag mag la lool yonente bi salallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama woolu ko mu ñëw di sukkootu ci aw yat yonente bi salallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ni ko mbirum xalxama nan la deme mu ni ko daana julli daana saraxe yonente bi salallahu taala alayhi wa sallama ni ko sa digg ak moom laa wax mu ni ko mere naa ko benn yoon ngir soxnaam su mu gënal ci man daa ko topp di wuteeg man yonente bi salallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ni merum ndayam moo téye aw làmmiñam bilaal demal dajale matt nu taal ko mu ni nu ngeen di taale sama doom ci sama kanam gërëm naa ko gërëm naa alxam yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama digal bilaal mu dellu ba mu àggee digg ko muy wax laa ilaha illa allah door a faatu yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama jullee ko ak saaba yi radiallahu taala anhum ba mu noppee la taxaw ca bàmmeel ba ni yéen ñi gàddaaye makka ak yéen ñu ni fi fekk képp ku gënal soxnaam ci ndeyam sunu boroom rëbb ko te du ko nangal dara du farata du naafile ba tey nee nañu ci tiira boobu sayiduna muusa alayhi salaam mas nay deyaaleeg boroomam ca doju tóor dégg lu koy woo ni ko demal ca kerug doj wi kon da nga gis kiimaan ba mu wàccee dugg ci biir xunt mi fekk fa ngóor suy julli di si jóot mu nuyu ko mu delloo ko am nuyoo jaar ci aw turam mu ni ko foo ma xamee kon moo la ma xamal mu ne ko yàlla mi xam lu nëbbu te ma nekk fii lu mat juróom-ñaar fukki at di ko jaamu mu ni ko looy lekk looy naan looy sol mu ni ko yooyu ci yàlla lay bàyyi koo moom mi bët mënta gis xel mënu koo xalaat sama xaajo nag ci yow mooy nga ñaanal ma mu boole ma ci ñooñ àjjana sayidina musa alayhi salaam bi mu génnee ci biir xunt mi di bëgg a ñaan dégg ak woote gu ni ko bu ko ñaanal ci ñooñ sawara la bokk sayidina musa alayhi salaam tàmbali di jooy di jooy di jooy ba mujj ngóor si moom it di jooy ngir jooy sayidina musa alayhi salaam sayidina musa ni ko loo def mu ni ko mësunaa ma mësumaa def benn bàkkaar mësumaa bàyyi lenn lu ma war waaye dama toppul samay wajur mu ni ko ci ñooñ sawara nga bokk bu mënta ñàkk ma dugg fa ñaanal ma sama boroom ma fees sawara ba benn julli du fa dugg sayduna musa alayhi salaam xool ci kaw bëgg a ñaan loolu dégg woote ku ni ko bu ko ñaanal loolu boole naa ko ci ñooñ texe te gërëm naa ko ngir ak muñam maqibum nu asma nee na am na ab labbe bu daan jaamu yàlla subhanahu wa taala lu mat juróom benn fukki at mësta xool asamaan mësta xool suuf si benn bis mu xool asamaan si mu yéem ko lool mu ni naa wàcc doxantu ci kaw suuf si xool ko daa ci wa daa di wàcc yóbbaale aw mburu nes tuuti mu gis ku yalwaan mu sarax ko ko te fekk na mu xiif lool nes tuuti mu gis ak jigéen mu finnaal ko lool mënta téye boppam ba joteeg moom daa di faatu fasaasa wax nañu ci xibaar yi ni bu yowmal xiyaamee bu ñu andee la mu jaamu yàlla subhanahu wa taala ci juróom benn fukki at yooyu teg ko fa ñuy natte jëfe te ñaawteef woow mu def day daal di ëpp doole jaamu yi bu ñu andee tuyaabay mburu woow mu saraxe ba teg ko mu daal di ëpp doole ñaawteef yi ñu yóbbu ko àjjana am na boroom alal boo xam ni ba muy bëgg a faatu daa am doomam ju mu bëggoon lool ni ko bu ma faatoo bul donn ci sama alal bu ma faatoo ba mu faatoo donnu ci moom dara ginnaaw ay fan mu gént baaya mu ni ko demal ci bërëb sàngam lu man ñaari junni ma nga fa mu ni ko ndax am na barke mu ni ko déedéet mu ni ko bëgguma lu amul barke ba mu xëyee nettali ko soxnaam mu bëgg koo jël mu bañ ginnaaw lii mu gént baaya mu ni ko demal bërëb sàngam am na junni ma nga fa ak junni ma nga fa mu ni ko ndax am na barke mu ni ko déedéet mu bañ ginnaaw lii mu gént baayam mu ni ko demal ci bërëb sàngam lu man ñaari dërëm ma nga fa mu ni ko ndax am na barke mu ni ko waaw ba mu xëyee dem jël ko andi ko ci soxnaam mu ni ko yow ñu wax la lu bari nga bañ ba ñu wax la lu tuuti nga di ko jël mu ni ko barke laa ci bëdd daa di dem ca jaba muy marché gis aw jën woo xam ni biir ba day leeray mu jëndi ko ci ñaari dërëm yooyu ñëw jox ko soxnaam ngir mu defar ko ba mu koy defar xar biir ba gis ca ñaari wurus lu ula mu ñëw teg ko ci kanamam mu jël ko wàcc ko ci biir néegam nee nañu ab yoor yoor mu doon waajal doomam ju jigéen ngir mu sëy ci benn buur ba mu ko waajalee ba mu toog ci ab lal la wax ay nitam ni leen xool leen lan la xaaja woo ci xeeti takaay am ko wax ni bu ab wurus lu lu nekkoon ci ab jëxam mu gën a rafet buur bi wax ni nañu ko wut ba ñu koy wut fekk ko ca waa joojee ñu jënd ko ci moom ci lu mat sa fukk fanweeri baax la ci wurus ba ñu ko tekkee ci ab jëxam mu ni xool leen ba tey am ñu wax ni bu baneen nekkoon ci ginnaaw bopp bi mu gën a rafet buur bi wax ni nañu ko wut ñu ñëw ca waa joojee mu gën a yokku njëkk njëgga ba jaay ko ci juróom benn fukki baax la ci wurus mu mel ni lii wecc na alal jamu bàyyee ay mbokkam ba ñu doon sayiduna aliyun karamallahu wajhahu mas nay dox ci mbeddi madina ba gis kuy faj nit ñi ni ko ndax am nga saafaras bàkkaar mu ni ko waawaw yow sama sang mu ni ko lumu mu ni ko da ngay dem ci xuru ngëm gas fa réeni yéene ak xobi rëcc ak tóortóori xam-xam ak meññitum ragal yàlla subhanahu wa taala ak xasum toroxlu suub ko ci gënug tuub jaxase koog ndoxum kersa dugal ko ci sinul yaakaar taale ko sawaras ragal naane ko kaasu muñ sayiduna aliyu karamallahu wacoo ni ko wax nga dëgg al imaamu alxasali yu radiallahu taala anu nee na asubaki yu rahimahullahu liggéey na lu man ñeenti liggéeyal na lu man ñeenti téeméeri ustaas nee na jàng na lu mat ñeenti junni hadiis waaye benn képp la ci jàpp di ko jëfandikoo bàyyi ya ca des ndax ak muccam ca la nekk ak xam-xamum ñëway ak ñiy ñëw te mooy li yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sallam bi waxoon kenn ci saaba yi radiallahu taala anhum deel jëfal sa adduna kem li nga fiy nekk tey jëfal sa ëllëg kem la nga fay nekk tey jëfal yàlla subhanahu wa taala kem ni ngay aajawoo jëm ci moom tey jëf ngir ragal sawara di ko moytu kem li nga mën na muñ boo ci tàbbi woon xëy na di moytu jëw ak fen ak bàkkaar yi ni ngay moytoo sawara la bëgg a wax fi mu ne sawara kenn du ko laal di ko tey te ku juum ba laal ko du mën a muñ wenn waxtu da koy daal di sori wallahu aalam yow sama doom hadis bi boo ko jëfee doo xaajowoo xam-xam yu bari